ba ma demee mbuti ñaar téeméer juróom fukk ak ndayan si benam njuli njuli njaayu sama rakki ndenge ay ay sama yaram dawna na mbokk yeeg xarit nak euh, gis ngeen euh, dembu ñu ngi doon waxtane li nga xamantene bi mom moy euh, l'île de Ngor alors aujourd'hui fii lay démarrer li nga xamante bi moom mooy Tam Tam Vacances muy dernière étape où euh, Ngor. Alors, euh, il bout extraordinaire, je pense qu'on en a parlé et, vous voyez le décor qu'il y a ici. Alors c'est vrai que nous avons une tout simplement parce que nous avons une jël si invité alors notre invité monsieur Diallo euh, dit artiste plasticien bi nga xam alors il habite ici c'est normal que je vienne le chercher alors tout à l'heure dinañu ande en tout cas euh, Dougouti ci euh, gi parce que vous avez vu que hier ci bateau la ñu nekkoon alors euh, tay nak mbokk yi ci tamtamou tamu tey bi tamtam en vacances di ngeen gis nak historique ñu ànd ci ak Maïmouna Sy continuer ay images wu Ngor vous avez vu les les les images magnifiques yim ñu indil euh, bu ñu jógee ci loolu ñëw ci vivre les vacances ànd ci ak euh, code Mohamed euh, saa su ne moo am yu am solo yi mu ñuy indil mbokk yi bu ñu jógee ci loolu suñu xarit Lena Sarr dina ànd ñun électro libre alors xam ngeen ne nag bon plan sa su ne dafay am solo torop ci émission tam tam rawatina nak tam tam vacances et ce sera avec la grande Khady Didi mbokk ak Michael Souma musique on peut pas parler de vacances sans parler de musique et il sera avec nous évidemment avec un artiste alors si euh, ñu y ci loolu nag que bon plan et c'est toujours extraordinaire avec la grande Khalidi qui, Je un avec euh, notre invité bon on va attendre ah gaal gi ñu xaar en tout cas c'est un plaisir d'être avec lui un grand artiste que vous avez eu l'occasion de voir euh, sur la RTS2 ci une émission mais nag euh, dañuy àndandoo peut-être ñu xaw dox tuuti ñu xaar xaar gaal bi bu la ci neex rek parce que ama xaw ma ñu dem ñu dem côté bi ayca ayca ah mais c'est bien hein. Mmh cette deuxième plage qu'on avait baptisée il y a à peu près 7-8 euh, ans, la plage du Pont. La plage du Du, Pont. Du Pont. Du Pont, parce qu'en réalité, pendant un moment, uh -huh. je me de peuple une ville, ok kay Pont. ah ma tu ci benn boo xam ne demoon commencer D'accord. les pour faire le beau mouvement de sa grande roue. ok et, et qu'en est-il qu'en est-il des dauphins euh, Est-ce est qu'on en trouve ici ben, Des dauphins, on a vu arriver des dauphins il y a quelques années. Oui. Moi, à suis venu peut-être euh, Oui. Je suis Goré. Mais ce sont quand même, c'est très rarement mhm. que nous venons d'Igis. Parce que je suis ah. il y a à peu près 34 ans. D'accord. 34 ans quand même. Là, l'Igis, c'est quand même petit peu. Ah ah. Côté plongeoir, côté Ok. Ok. Et, on a un, très beau coucher du soleil. Alors c'est vraiment un endroit paradisiaque beaucoup de générosité exactement ah, énormément exactement mais j'ai vu que l'architecture a beaucoup changé ça aussi ça ah, m'a choqué. Ah, la boulimie des uns et des autres. c'était que des cabanons des avec le temps l'homme et cet art avons commencé d'abord Maintenant, le texte autorise effectivement que nous, prenions tabac. Mais à la force des choses, quoi. <laughs> <laughs> Respecter un peu. oui. l'environnement de l'île. Et aujourd'hui, il y a un petit peu de tout, les il y a un théorème qui est lié aux goûts et couleurs. D'accord. Hein, alors téléspectateurs RTS2 donc Mangini ngi ça m'a invité monsieur Diallo on a un peu discuté et de ko gën a yaatal ci plateau bi ba ca kanamee ak euh, Maymouna Sy kon de l'autre côté tout simplement pour dire ah, sur étape bu avec notre invité alors on vous dit à tout de suite man daw naa laaluma la Biram Jóob sol na mbubam njoobeen sol na mbubam dara la sol taxi si baatu man denk sol na mbubam luy naaw dal si jéeri luy naaw lamu naaw naaw dal si jéeri day naaw dal si jéeri alors euh, mesdames et messieurs ñoo ngi euh, euh, nuyu kep ku nga xamantene bi dama koy faral di wax safoo nga RTS 2 mais j'ai envie de Respirer encore et de respirer et de respirer. Que c'est bon d'être encore. Je vous assure. Demain, Anne ma invité, enfin, Demoko Djelidi, euh, sur l'île, euh, Monsieur Diallo, euh, que nous allons encore présenter tout à l'heure mais euh, yéen ñi nga xamante bi yéen Dakar Sénégal àddina ñëw leen waaye Ngor surtout du côté de l'île c'est agréable alors RTS2 émission Tam Tam mbokk euh, dernière étape nak euh, fii ci Ngor may am mbégte nag saa su di ci ànd ak nga bi mooy la grande Maïmouna Sy c'est toujours un plaisir May de te recevoir parce que nak la nga ñuy indil Amna solo di kontaan nag di fas wax Ngor bye bye lu la nuyu tàggu la mais en tout cas, très certainement, on y reviendra. Maï, bonsoir et merci d'être avec nous encore une fois merci beaucoup Yaham. Euh, bonsoir à toi bonsoir à tous les téléspectateurs ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun euh, boobu ba léegi mais on va quitter Ngor avec un petit pincement ah au cœur vraiment ah, man de wax dëgg neex yàlla bu ma <laughs> Fatou tam-tam vacances bi moom dañuy dolli waat yeneen carte numéro Ngor de ñu jéggi dem ci île bi ah, ah pourquoi pas hein. en tout cas euh, Maymouna ñi ngi kontaan <laughs> di uh-huh. feggoog yow waaye nag mbokk yi di am mbégte lool di feggoo ak ku nga ne bi su ma juumul ci ay waxtaan au moins 34 ans euh, l'île de Ngor alors tout à l'heure je viens de la plage euh, plage des Pans tu connais ça dit quelque chose Je ne connaissais pas. Pas du tout. Alors, c'est pour moi, justement, une façon de souhaiter la bienvenue à monsieur Diallo monsieur Diallo nous lay nuyu euh, di la dalal bu plateau Tam Tam euh, di nous ci sa sujet way nak contane ñëw ak ci vraiment historique ay waxtaan yu am solo yu jëm l'île de c'est un plaisir de vous recevoir sur RTS2. di gërëm di leen euh, mm-hmm. di gërëm di sante monsieur le maire. Mm-hmm. membre du conseil municipal bi fi mm-hmm. notable. dëkk bi ak suñuy jigéen di leen dalal jàmm ci émission bi di mujjee nuroo nuyoo gi nag suma jarbaat di suma xarit Mhm. di Maymuna mi nga xam ne lu nekk mi ngi koy def pour ñu xam ma ci àddina bi. exactement ko yàlla fay te fay leen. et elle le fait aussi pour euh, euh, beaucoup d'artistes May merci euh, en tout cas mbokk yi dañuy remercier nag monsieur le maire alors Amadou Gueye monsieur Amadou Gueye mi ngi fii incha allah dinañu jokkoo ak moom moom itamit bu ca kanamee monsieur le maire yow ak ñi nga àndal ñëpp RTS de contane nañu ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax nous avons été bien accueillis nous avons été bien gardés et les lu war ci ñun vraiment yow ak say équipe defal ngeen Nous ko euh, encore une fois le maire Amadou Gueye ak ñi mu àndal euh, mbokk yi euh, madame Régie nous xool encore des images yu nga encore bi dañ ko jël encore fii ci Ngor ou alors du côté de Lille mën cee waxtaan ak suñu xarit Maymouna alors c'est parti pour encore d'autres images Nous avons maa ngi nuyu Sophie c'est vrai que Sophie elle est là et très certainement elle va nous faire du poisson alors nous avons suñu image images.

Euh, leneen li ñu mën a wax tamit sànq maa ngi ko doon junj sax euh, euh, émission bu démb plutôt. Mhm. ñi nga xam ne dañuy faral di def canoë kayak mais ñeneen ñi nga xam ne dañu bëgg a dugg ci pirog rek yëngal seen i mbagg comme ni ñu koy faral di waxee. <laughs> te lébu yi mën koo def bu baax a baax. ñu gis ko noonu si image yi. donc ngo île de Ngor ngi nii vraiment une très belle île mën naa wax ne c'est un petit paradis. maanaam daal li tubaab naan un havre de paix. très bien cocotier yi. vraiment boo ñëwee air bi pur na mhm. di nga respirer mhm. nga jógee ci jaaree fa faf wër yenn feebar yo xamante amana xeyda yang ko don souxalé <laughs> wala ngay doxantoog mom mu jaaree fa faf rër uh-huh. donc euh, mu ngi noonu Ile uh-huh. de Ngor ñu euh, fas comme ni nga ko junjee sànq na waxat ci taarix bi ñewat ci historique bi gën ci xuus tout à fait uh-huh. alors je vais faire juste un coucou à une petite fille je sais pas si elle a 2 ou 3 ans elle s'appelle Yaay Kati euh, mi ngi nekkoon ci ci pirog bi ma yobbu won ma dem jëli ji monsieur Diallo il paraît que dañ koy bayyi ci île bi muy fay mané ko ah tata bi de mënul fay mais bon anyway ñom ay lébu lañu alors monsieur Diallo euh, une petite réaction par rapport ak euh, image yi nga xamantene bi RTS2 indi nako nam comme ni ma ko on aurait pu faire le tour parce que il y a des images extraordinaires de l'autre côté de l'île ah, Il, il de Ngor mom image ngeen ci yoré ni image yo taru la mhm. mais nak su fekkoon da ngeen gëna am jot mhm. yoré won ben drone té jëloon tamit euh, précaution filmer ginnaaw il mhm. daa leen gën a yéemu incha allah dinañ dinañ ñëwaat ci taaru ci taaru dinaa leen il euh, de Ngor Ngor en général jeeg bu rafet la waaw ah, ah, moo tax li ngeen wax léegi tey si tey la fi yéem tay ngeen naan la fi yamadi ya fay yamani da len delu ci inshallah jeeg bu rafet mom ko baye tamit da ngay delu wat nek ko deug <laughs> <laughs> oui oui may deug wa dim ko waxe non la de uh-huh. monsieur diallo mom da mom olof sax mom da set mom et puis euh, parabole bi itam nim ko defé da rafet kon uh-huh. euh, monsieur diallo ñu fatali ne artiste nga artiste plasticien nga nek fi ci île bi ya xam mu koy wax sank def nga fi danaka lu tollok fanwéri at ñent nga ñëwon fi pour liggéey suma juumulé lila fi indi won ba nga dajeeg jeeg gu jekk ma sha allah bu mujju la apprivoiser nga ñëwaat ak ñun touti rek ci euh, lula lula lula la séduire ci jeeg bobu waaw en fait li ma séduire moy d'abord ngor. Mhm. ndax kenn ku nekk xam nga ni ku dund lopp juróom benn fi at ak juróom benn euh, jaar nga fu bare gis nga lu bare rawati nak su fekkee da nga jàngee bitim réew ba pare ñibbi si ñëw nekk dans le business. mais ba ma ñëwee Ngor li may njëkk a def su ma duggee ci dëkk. Mhm. mooy laajte fu mag ñu baax ñi nekk. Mhm. ma dem ziar leen amanteeg ñoom. important. yàlla def Baye Ablaye Samb moom laa fi njëkk a dajal laata may egsi ci île bi. Mhm. ñu amoon ay jaar jaar ak njabootam. macha mu ñaanal ma te ñaan googu ma gis ni dal na suma kaw. ma laajte fan lañu mën a defee ay ziar. ñu joxoñ ma ay place ci sëg ya ba ma demee ci sëg ya tamit joguma ajjuma bu nekk saa yu ma yeewoo wër li may wër jaar ci ngor dem ziar laaj ay mag ñu bare ñu wax ma mag ñooñu mhm. ñañu doon ak seen diggante ak seen boroom lan lañ ca njor léegi la ca des mhm. mooy Sonatel bañ koy soog a créé en 1985 d'accord yàlla dafa def ma bokkoon ci ñi nga xam ni Nous doon animé les journées de réflexion de 81. Ah, Alassane Ndaali Ndiaye bi nga xam le premier directeur général. ni ma dama que nga gëstul ma xool nu restructurer le réseau téléphonique de Dakar. d'accord loolu mooy li indi sama tank ci île de Ngor ndax dama gis ci carte bi camp militaire. oui ma camp militaire mënul am fu téléphone dul tout à fait loolu moma fi indi. ba ma ñëwee tamit yëm ci ki nga xamné moy sama kilifa fi moo fi doon sama gi moy libas rek. waaw kooku moy ki ma gungé mhm. ma def étude ba mu jeex ba étude bi pare tamit ci mom la yalla jaarale. ma am fi suuf si ma fi ñëkk am. très bien alors euh, euh, on aimerait aussi savoir hein, euh, euh, euh en ce temps-là île bi naka la meloon parce que on a vu de gros changements. waaw île bi nag ku koy xol sur le plan de so koy xol dans le temps. oui diggante mën nañ ni ci fi njëkk sanc mhm. à part camp militaire té ñu ko doon wax Eric Kock monsieur le maire moom ko gëna xam fouf mhm. ndax il bi bokk na ci son ses royaumes d'enfance ok euh, ay Barak, les lata baraag yoy di am mhm. dafa am lo xamni histoire daf ko jàngale ok li histoire jàngale moy li amone Sénégal entre 1914

ba ñu bàyyi seen dëkk ndax duñu leen di xamal ni jàngoro bu bon fay dugg pour mun a toqati gox boobu féetewoo. woo donc c'est un point d'histoire extrêmement important. njaboot gee tax ma koy wax. Mhm. te dafay wane tamit jikkoy waa Ngor gëm bi ñuy gëm seen bopp. absolument. donc ñoom du ñu jàppale woon Blaise mhm. Diagne. d'accord woteel Blaise Diagne. Mhm. ba Blaise Diagne gagné. ba Blaise Diagne gagné après ñu indi discours bu naan peste bi. oui dafay dugg si ci bir Ngor. d'accord. du ñu tubaab yi ni leen du ñu bëgg ngeen jóge fii. Mhm. comme ça ngeen mucc ci peste bi. Mhm. soo leen muccee ci peste bi ñu profitoo ci pour defaraatal leen dëkk bi. ok ñoom gëm gi ñu gëmoon Blaise Diagne tax ñu refuser mhm. yaakaar ni duñ leen di nax ni peste du fi am.

yow euh, di la dalal jàmm c'est euh, toujours aussi un plaisir euh, di feggoog yow maam yaakaar rek nekk tey moom la nga ñuy toggal tey mënul nekk leneen lu dul lu jóge ci géej

Mhm. moom la yor à côté. Mhm. maa ngi defar li nga xamante moy benen marinade bo xamante mom lay laay def. waaw pour euh, euh, dolli ko ci poisson bi. pour ci kanam touti ba mën ko tek ci gris bi. Mhm. wàññi xal yi ba mu dess touti bay ko noonu muy ñor naan. très bien en tout cas euh, mbok yi nañu euh continuer ak suñu xarit Sophie parce que nak dañu bëgg yekkal monsieur le maire ak ñimu andal ak suñu invité monsieur Diallo alors may defe na né histoire boobu nga xamante bi mu ngi koy raconter ci île bi ak ci Ngor dafa amone importance mu ñëw ci parce que ñu melni man ak ñi ñi sétane xëy xamuñu won histoire bobu may dañu ci parce que il y a tellement de choses à dire sur sur l'île de Ngor et, et moi j'y tenais et on a justement une personne qui est là euh, qui peut vraiment vraiment nous donner des informations may

fan lañ ko mëna tek teg. monsieur Diallo tamit suma ma ak sama borom amuñu ci lo xamni lu précis la li wóor moy du patrimoine mondial classé d'accord mais site historique classé la. maintenant lutax ñu ni site historique classé la. Mhm. amna na ci ñi nga xam ne bind. d'accord amna ñenn ñu ni amna amna ay taawu ama coquiller yo xamni dafa nekk ci digu île bi. Mhm. feulé ca kaw ca le un des points les plus hauts d'accord mais quel mënul xam la ca suuf ndax doj ya fa dafa di doj yu donc lors su fait ni lu am la mun effectivement source protection bi nga xam ni moom protéger île bi. d'accord mais am tamit leneen loo xam ni mun na def site historique classé ndax le seul volcan bi nga xam ni moom am Ndakaaru. oui volcan Bobu, ci deuxième éruption am moom il li jur île de Ngor. Ah. le volcan des Mamelles. oui ba volcan simple mhm. volcan Amna ci ci un million ak téméri jouni at mhm. juromi téméri juni at mhm. ci la mamel Très bien. ñu yaakaar ni volcan bi feyna. ñu dem ba mu ñu ci at mu am la deuxième éruption volcanique deuxième éruption volcanique bobu mo moo jur de di de Yoff tamit pointu l'île de mm-hmm. ak yenn extension yi nga très bien alors alors euh, May ah. il m'a bien montré euh, euh, pointe c'est ça. Ah, waaw mooy ah. le plan sur Google. Wow. manipuler l'île de Ngor. Mm-hmm ngeen koy pousse soo leen ko puusee dana ñëw ba sës ci géej gi mhm. dana ñëw ba sës ci tefes gi dootu leen gisati ces deux couloirs la d'accord mais ba ba ba volcan bi ñëwee ba mu ba mu ba mu tojee mhm. après les phénomènes d'érosion oui ñoom ñoo ubbi ñaari yoon yi nga xam ne mooy bii mhm. ak di bële d'accord alors donc am na ay jamono yoo xam ne y avait le link était quasi bloc d'accord ok. Moi, dans l'imaginaire populaire. Mhm. am na lu ñu leen di faral di wax ñu naan euh, Cheikh Anta xeetu nit yi nga xam ne ñoom ñoo màndargoo duñ doon ay nit yoo xam ne du ñu gudd gudd gudd gudd gudd gudd mais c'était tout simplement pour justifier le fait que ni diggante fii ak fii ay jéego mënoon na ko dox très bien en tout cas euh, euh, may defe naa ne duñu duñu duñu doyal euh, ci waxtaanu monsieur Abdoulaye Diallo mbokk yi may fàttali ne artiste plasticien la dëkk sur l'île de Ngor alors on me signale on va continuer ah may t'inquiète pas on me signale de l'autre côté qu'il faut que aussi ñu jublu ci sunu xaritu artistes yi nga xamante ni bi euh, euh, euh, Michael Souma pour bien nous les présenter alors nous ñaan suñu artistes donc nous defal ñu bonne prestation bu ndaw bu ko Michel Michael dana xuus bu voilà alors juste pour faire plaisir encore une fois non seulement à nos téléspectateurs mais aussi à tous les habitants de Ngor en général kon on vous laisse avec nos amis cher Oumar et le groupe Sao Saúde. warba warna mbule simsima ngi ndoo yaayi maada mbule ah. góor ga muñ na mbule mbule mbule mbule yaayi maada mbule ah. ka warba warna mbule simsima ngi ndoo yaayi yayi mada kawar kawarba warna muleya yayi mada muleya gorgum na mule borom jundak borom xanga gorgi basse ñay ngor xeer ngor lañu gor gor muté ñu diko ganga sa junda sa wasia sa junda sa wasia sa junda sa wasia yaa sooga mën a dem xeeru ngor la ñu góorgóor mu te indi ko gàngas xeeru ngor la ñu góorgóor mu te indi ko gàngas sa junda ya sa junda ya sa junda ya sa junda ya sa junda ya banana be ndiroy fili fili wonal banana be ndiroy fili fili wonal banana be ndiroy fili fili wonal banana be ndiroy fili Sejunda sawasya, sejunda sawasya, sejunda sawasya. Sejunda sawasia sejunda sawasia sejunda sawasia Mas Taman waaw mbokk yeeg xarit yi nag dañuy tàcc bu baax a baax a baax euh, artiste bi nga xamante ne bii euh, waaw la mu wax nak euh, mbokk yi dafay am solo parce que nag defe naa ne ab lébu faaw mu turu nag ca xàmb ya laata muy dem même bu nekkee extérieur léeg-léeg mu ñëw xaw a laal ci xàmb ya tuuti mbokk yi dañu ñu découvrir encore plus largement artiste bile ak groupe am ak le grand Michael Souma ce sera tout à l'heure alors May euh, du ñu doyle nag ci euh, euh, waxtaan bi ak monsieur Diallo waaye dama lay bàyyiwaat encore deux questions ak monsieur Diallo toujours jëm ci wàllu l'île de Ngor et et on va recevoir madame Cissé Kodou Mohamed May.

sawaas ah, Da daa mel ni bañ ko fi waxee sank am na ñu mu yëngal exactement ma ma tek fofu sama baram ñëwaat ci sama historique uh-huh. alors peut-être juste pour terminer yaa koy wax sank. Euh, ñu ñëw ci benen page yu histoire wu Ngor wala il bi si boppam parce que dans l'histoire su ma juumulee vers les années 1940 am na lu fi jot xew itam loo xamante ne jar na euh, ñu ñëwaat si laata ñuy jàll nag ci li nga xamante ne mooy la plage des Pins <laughs> waaw dafa dafa am ñaari ñaari fait historique oui yu am solo. Mhm. ci Ngor man mënuma dissocier village bi ak île bi. d'accord Ngor rek la. Mhm. ndax sudul won ñi dëkk ci village bi waaw île bi tey ñun duñ ko xam. tout à fait sudul won ñi dëkk ci village bi histoire bi ñuy wax jagleel ko île bi du am mais ñaari fait historique yu précis mais loolu surtout pour suñu njabota a tax. ndax euh, ngor baat bi dégg na ngeen wax ko kéro dafa am ngor am gore muy deux substantifs yo xamni ni jege yoo nañu mais bokkuñu. dëgg la mais ngor nak limu mu ëmb. Mhm. ñi fi dëkk ñi leen meññi. Mhm. duñ ko dund laata ñuy juddu.

am kenn ci ñom ko xamni ne na recc ba yegg si ndakaaru mhm. ku ñuy wax njaga Isa ñukay wax señ ko ci jamono ok njaga isa bobu ba mu ñewé li livre yi wax yem ci du ñu ni lebu yi ñoko jël fat ko ok mais li wóor ñi gëstu mhm. amul sikki sak ni lebu yoyu mhm. lebu yi ngor gi la won te feñ ka fatoon ba tuba bi teggu ko beut waw fi ci île de Ngor la très bien c'était à savoir. ci île de Ngor gi mhm. lañu ko làqoon tubaab bi ni fay xifal lebu yëpp. waaw ba ravitaillement yi ñu daan rabitaay di ko daaralé ci biir nak bi ñu dañu koy jaarale yaraax pour muy egg Gorée. pour ñi leen fa nekkaloon. d'accord Wa Ngor des ci sen Ngor. Hmm. ni ki comme ñëw na ba ñu làq ko. Mhm. ba àddina di tukki di ñoom ñooy ki kay jox tubaab bi. loolu daal mooy Gorée daal. waaw ba ñu demee donc ba signer le traité de 1830. oui entre les autochtones ak tubaab bi. ci la ñu soog a xam ni góor gi Issa waa Ngor yi ñoom ñoo ko làqoon fii. kon nag euh, waaw bravo bravo. loolu dafa di loo xam ni il faut njaboot gi xam ko. absolument ku xamul sa démb yi wayjur. Mhm. munoo sàmm sa suba. beneen bi doon en fait aussi historique extrêmement important. oui monsieur Diallo. mooy ba nga xamee ni général de Gaulle xam ni fi à Dakar. oui l'état français moo fi nekkoon Vichy. tout à fait. Moi a les forces françaises libres. le mm-hmm. FL. Mm-hmm. FLN. ñu fait ci Dakar, 2000 tonnes d'or de la France. très bien. denc fële ca Thiès. Mm-hmm. oru Pologne ak oru Belgique. ba ñu defee commencé ce bombardement yi. waaw ñi nga xam ne villages

alors euh, on va y revenir très très rapidement alors je pense que Mounek nekk ay valeurs nga on espère les retrouver ici au Sénégal parce qu'on a euh, tendance à les perdre à euh, euh, copier alors que digone nañu torop alors c'est juste une petite pause avant ma bàyyi la nga terminer pour aller de l'autre côté et voir sama Sophie fan la toll gis affaire Sophie jóge nga ci table gi dem fi nga Sophie fan nga Taïti, c'est le plat du jour.

Euh, bi nga doon ñëw ak ñun. boobu léegi boobu mooy li nga euh, le 23 et le 25 septembre 1940. oui. donc pour les valeurs yu importantes yooyu d'hospitalité. Mm-hmm. de partage. Mm-hmm. et en réalité c'est tamit ni individu am na solo mais collectif moo ko ëpp doole. tout à fait te loolu daf fi am ba léegi. Mm-hmm. c'est l'intelligence et l'ingéniosité de ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb te seen i njaboot nekk fi tey mhm. ba leen tubaab bi de daf leen di xiifal ndax seen 1914 1925 mu ni daf leen di xiifalaat ndax bañ bi ñu pour dem feneen temps bi ñu leen koy defaral mhm. ñoom ci la gëstu ñoom mag ñi d'azote

Uh-huh. dafa dafa wane xel. oui ak nooy jëriñoo xel. absolument nooy transformer faiblesse en force. tout à fait waaw loolu tamit lu am solo la. Mm-hmm. que njaboot gi xam ko. absolument pour xam ni. àddina li ci ëpp solo. Mm-hmm. mooy nooy def ba meubler sa yóor. Mm-hmm. balaa ngay xalaat meubler sa kër. alors nekk na nag euh, mbokk yi euh, defe naa ne ay euh, ay digle yu am solo nga nag nga ko waxe sax nga meubler sa xel. Ah, meubler son cerveau avant de penser meubler son salon. absolument ça je suis ah. entièrement d'accord et c'est pour tout le monde ah. cela en tout cas ñi ngi lay euh, remercier way n'ak, euh, di remercier bu baax baax euh, suñu xarit madame gay May Mounassi c'est toujours un plaisir May malheureusement nak tu vois ñi ngi ci vacances des ñi ngi ci j'ai un peu mal au cœur hein parce que c'est l'étape de Gore était était magnifique May mais on est obligé d'aller ailleurs parce que euh, Fog New World Sénégal, on a dit encore plus proche de vous, RTS2. Maï, merci beaucoup. Alors, plaisir de te retrouver très prochainement. à Gor, très bientôt d'ailleurs, c'est-à-dire euh, à partir de lundi, RTS2 est déplacé au Wadem Tibelen Gor, des fois Abdir, mais téléspectateurs, ils n'ont pas télévision. <laughs> Maï, merci. Nous sommes aussi qui nous accompagnés. merci Yachem, c'est moi. Je suis un pincement de cœur. Ndaw, euh, ouais. étape ngorbi. On a vraiment senti euh, les fortes sensations de cet eh, été avec la FTS hein. de Fichingo. <laughs> donc nous rendez-vous la semaine prochaine euh, comme ni ah, ah. Euh, remercier Lamine Ara mi nga allons commencer commencer ba léegi Vacances 2018 La mm-hmm. Lamine Ara est au centre de Bop. Mm-hmm. en face rue 5 numéro de téléphone 77 557 52 84

Ici, Khalibi, faux. Si les enfants jouent, faux, les enfants jungle, mais jungle boubar, ça. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y a Amoul Place ici à Dakar où les enfants peuvent carrément faux. Et c'est important pour le développement des enfants. Ça veut dire croissance, euh, intellectuelle, la vie émotionnelle de l'enfant. C'est très, très important que les enfants amènent des espaces pour faux et apprendre. plâtre plâtre mold après plâtre après da ngay da ngay dugal plâtre bi ci ndox bi bu mu fees euh, ci kaw ndox bi après na nga mélanger ak sa loxo. après na nga koy ci ay mold ñu am fi pour man ça fait partie de la science quoi. parce que déjà lii c'est c'est un dafa nek ak euh, chemistry. un genre de chemistry qui est, qui fait partie de la science et aussi comment xalé yi ñu mëna a ci ci def ay genre procès parce que procès mo nek important quoi. à sa affaire bi mëna yak quoi mais loolu mo baax ci xale yi di xam.

c'est parce que xale yi aussi dañu bëggoon ñu comprendre le euh, fonctionnement wu yi ñuy gis au quotidien par exemple dañuy rencontrer par exemple fil électrique yi ñu wane dañuy gis courant bi muy dox xamuñu comment ça marche donc ñun aussi dañuy expliquer nan lay doxé ak bot allumé li moy tak ni lan lay démé pour fonctionnement ñu xam ko aussi dina mëna tax aussi ñu xam danger yi ñuy ñu mëna dajel ci kër gi aussi, par, tard, par exemple, la première semaine de quand on avait choisi le langage. Nous choisir le langage, c'est pour que le mot langage, mot bob, nous savons ce signifie. Nous savons que langage, c'est pas forcément c'est le langage corporel, il y a, d'autres choses. Le aussi, par exemple, semaine bidigno, chimie les donne. Chimie, c'est comment ils vont voir. Nous avons vu par exemple, vinaigre avec bicarbonate, qu'est-ce que ça donne? Bobo, les je ne sais pas moi Ndokh ak diwlin lan lay ban réaction pour ñu comprendre réaction yi nga xam ne dafay dafay difficile ñu comprendre ko à l'école parce que dañ la koy wax rek mais ñu gis ko en pratique mën si jouer aussi à travers foo si foo bi lañuy ñuy ba xamné ah ndekete buma jaxé jaxasee diwlin ak ndox ak peut-être def ci peinture ça donne ça et que mën na sax def ci feuille mu jox ma benen tableau d'art wala dara suma ma ñu gëna accès xale yi ne leen ñu foo parce que man je vois toujours ñu ne xale waaw demal nga liggéey xale dañ koy jàngal liggéey oui baax vraiment baax mais aussi mën na di liggéey sax te di foo xale lu mu gën a mën si ci fool man yaakaar naa la koy gën a mëne donc nañ bàyyi xale ñuy foo même su fekkee ne

mën nga toog si sa kër li ngay foraatu ñun ni ci bëri recyclage la nga foraat say affaire nga defar foo ak sa doom day tax day créer du lien entre parent ak doom bi mais aussi day tax xale bi day gën a développer ay compétences am gën a am confiance en lui aussi

Wow, xam nga kon damay am lu ah am nga <laughs> en tout cas bu a baax xam. gis nga la la dernière fois dinañu wër tous les camps de vacances. Mhm. yi nga xam des dañ fay def des xam ne dafa des yi des euh, it euh, dañuy rek dox thématiques. voilà donc je euh,

à l'épanouissement et aux loisirs. D'accord. tes droit bobo, ni droit à l'éducation mes solo ni droit à la santé à solo ak ak mhm. la importance. Mhm. donc euh, xam nga que xam dañ du mais euh, parce que talatuñu ko te euh, xëy na ah, ci tablette yi comme li nga yoré c'est tout waaw euh, donc voilà li xamna tablette bi defoon naa ci defoon naa ci sujet talatuñu té bo gisee ñu doon ñaar xalé yi pour ñuy nonu mhm. da fay indi li ñuy wax sociabilité ci nit day tax nga social day tax nga bëgg ay nit day tax nga euh, bëgg jaxassok ay nit laami ñom mhm. euh té man bi nekk xalé ma ngi ko ay ñom wuré xawma ndax euh, yaa ngi koy ko eh ben, daan nañu eh ben def wuré euh, <laughs> wuure c'est très rare maintenant nga gis ko ci keuru tubaab bi rek ngay dem gis ñu tek wuré bi té day nekk objet de décoration ce qui est bien dommage mhm. daan nga gis ñu daan ñun suñu temps làccantu lañ doon wax moy fo jàng togg da nga gis dañ doon am cin yu ndaw am ay noir yu ndaw et tout jang mhm. da nga naan gis tam ñoo xam ne dañ daan defar ay poupée waaw man mom euh, sawaron na torop dem ci tailleur yi man ak samay morom ñu dal di out ay morceau tissu créer mais ci bir création bobu mhm. da ngay gis euh, logique bop loxo fu mo wara génné tank fu mo wara génné génnee ñi ñom dañ nan def li nga xamné mom modi moo defar ay auto mhm. defar ay vélo yooyu da fay manam développer intelligence xalé bi si wàllu créativité da koy da koy da koy da koy day tax mu très bien donc lool motax euh, tay ma indi len sujet bi ni ah ah. di wax ne parents yi dañu am rôle bu am importance bu ñu wax jouer parce que ñom ci seen bop mm. dañu war di fook ak seen ay doom. oui voilà très bien alors monsieur Diallo une petite réaction par rapport ak euh, sujet bi nga xamantene bi madame Kodou Cissé. Mm-hmm. indi lañu ko alors c'est vrai que euh, ñi ngi ci vacances c'est vrai que pendant les vacances vous aussi au niveau de de Ngor. Euh, da ngeen di recevoir euh, pas mal d'enfants. alors d'abord réaction par rapport ak euh, atelier leur importance et voilà ni nga xamante ne bi noonu la fi xale yi di nekkee pendant les vacances. waaw li mu li mu wax ni am na solo lol. li tax mu am solo. Mhm. dañuy xool conséquence su li nga xam ne mooy yi bees yi am. Mhm. ci xalé yi maa ngi gis bu yàggul rek ci benn étude mhm. bu ñuy wone ay xeetu arthrose yoo xam ne li koy jur

ban xeetu humanité la ñu yéene suñu njaboot suba. ah doy na waar ah. waaye. seet nag li nga xam ni dox na feneen ñu topp ko muy accéléré wu di accéléré wu ba ñoom tey. Mhm. ñu naan nan la ñuy def ba rocceekuwaat génnaat ci loolu pour dellu ca la ñu nekkoon démb. Mhm. ñun ñu am chance soreeguñu ci loolu lool. Mhm. war nañoo mën a xool nu ñuy téye suñu bopp. delluwaat ca cosaan gi.

Ah, expliquez nous je prends deux exemples. oui. benn bi sama doomu xarit la boo xam ne dafa dëkk fii ci dëkk bi. waaw nekkoon lu ndaw. Mhm. ñu koy seetlu macha allah yàlla na ko yàlla fal sama cat ak sama bët ak bëtu keneen. amiin Amen. saa yu ñu ko gisee muy feey. waaw mu def ci feey lu yéeme. Mani ni baay bi suñu doom ji day ku ko dimbali ba lii ñu professionnaliser ko. Mhm. dañ ko mos a dégg. d'accord yalla def na sutura tay mhm. ci lolu teranga am op na teraangay ministre de la république. macha allah ndax champion de natation la fu mu nekk. ci walu sport moo tax loxo xaliss la sen tànk xaalis. très bien. ñi fi ñew mhm. keneen ko xamni suma suma cousine la. waaw tay mi ngi ci 20 ans. Mhm. ba muy ñew dima set ci fi ci île bi ñenti atam motagul. d'accord su ñëwee ma jox ko ben canoë kayak bu ma jëndoon pour samay doom. mu ci jang di kifin. d'accord ba mu amé 16 ans la nek championne de France très bien alors euh, on a euh, li nga xamante ne bi côté sport je pense que euh, Ngor tamit des ay champions et des championnes. parce que j'en ai parlé hier il y a beaucoup de filles qui ont le football ñu ngi percé mm-hmm. triathlon on en a reçu.

di genre association bo xamné day dimbale parents yi pour jàngal nak naka la ñuy euh, fooye ak seen dom yi mhm. mais surtout ce qui est plus important ya xam instant bi mu mu mu mu interpeller ma man interpeller le yow ak bép wajur bu ñuy seetaan mooy ñu ñu ñu def touti espace ci suñu emploi du temps pour suñu dom yi pour faire ak ñoom kaf ak ñoom reetaan ak ñoom parce que ci biir fo boobu nga leen di nga leen di jàng mm-hmm. ci biir fo boobu ngay waxtaan ak ñoom mm-hmm. ci biir fo boobu tey jii ngay développer seen intellect ba ëllëg dina nyumel dinañu mel ni nga nga bëgg mm-hmm. donc euh, l'éducation par le jeu Moi, rek ñun li ñuy Moi, euh, le divertissement intelligent donc ñoom ñi ngi nekk fii ci Yoff soriwul Ngor Yoff benn la donc moo taxoon ñu demoon seet leen tey nag euh, yaa xam li may tëjee rek mooy dafa am matière scientifique yi

autoroute à Parce que c'est <laughs> d'actualité. Donc, c'est extraordinaire. C'est des enfants, c'est à partir de 2 ans, tiens-toi bien, 16 ah. ans. Donc, euh, encore une fois, Bougnou Bafoué, se doit euh, des enfants au loisirs et aux jeux. Donc, euh, à l'épanouissement, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sissé Kodou Mohamed. Kodou, kan remercier remercier waaw je remercier de remercier toute l'équipe de la RTS. Mhm. de remercier ñi nga xam mhm. surtout Hijab Store Nek euh, Sacré-Cœur 2 et sur euh, Facebook avec euh, Ouli madame Diaw de remercier que comme nous toute l'équipe de la RTS 2 parce que mhm. sincèrement. Uh-huh. madame <laughs> mais toute la semaine. je vous suis. Uh-huh. avec énormément de plaisir. merci beaucoup. merci beaucoup. plaisir de te retrouver toujours Vacances.

amna aussi li nga xamante ne pomme de terre. mom la bolé def fi ma ngi defar aussi ben sauce mayo. comme ni nga ko gissé ni defna ci euh, amna tomate. oignon. Mhm. concombre amna touti li nga xamante ne euh, citron. ci kanam touti nak ma bàyyi ñew def ci li nga xamante ni marinade bi may défar ak herbe yi. moy persil coriandre poivron vert. ak touti feuille de menthe. pour mu gën a relever goût bi. Mhm. moom laay jël ñëw def ko ci kanam amna tamit de vinaigrette bo xamni citron la ak moutarde ak vinaigre. Mhm. def sel poivre ak euh, un peu d'ail. très bien jël def ci oui. citron.

Euh, dans quelques instants euh, ñu ngi euh, vraiment remercier bu baax baax monsieur Abdoulaye Diallo Moki di fàttali artiste plasticien la mi ngi dëkk Chi ci île bi gis ngeen ne ci image yi vraiment monsieur Diallo dañuy am mbégte lol lol lol, machallah. te maa ngi la koy wax dafa am importance c'est-à-dire que xam sa bopp am na importance xam nga maa ngi lay wax sànq ne que vous parlez parfaitement wolof et c'est pas le cas de de, de tous les jeunes euh, notamment euh,

ba ñu ne dañuy def adressage yu Île de Ngor am na tur yoo xam duñ ko fi fekkoon. waaw ndax fofu duñ ko daan woyé teeru Léguni. d'accord mais tour bi gënoon a moy deuxième plage. ok ñu sét li nga xamni ne dañu amoon yéene man ma amone yéné ni damay fexé nu ñu peupler île bi yépp ci ak ay pan. ah ça aurait été très beau ça. et ñu démon ci ba yalla défon ñu sutura ñu amone ñaar pan yo xamni ni. Mhm. miinoon nañu nit ñi min bo xamni mhm suñu nit ñi ñëwee ba toog ba tefes gi fees dañuy kii di jël seen di def seen roue boobu. d'accord doon lu jekkoon lool. oui yàlla nattuñ ci nag. les chiens errants. ah xëy bés jël jël leen moom moo taxul ñu kii ba pan yooyu demee nag. ñuy ba ci adressage bi. waaw ñu ni nañu tuddee tefes googu la plage du pont. ah, ah d'accord parce que mënuñu woon tamit nekk ci île bi muy quartier wu dëkk bi. waaw sooy expliquer gan gu ñëw. Mhm. nga nan ko da ngay jaar fi so demee ba ca garab ga feulé très bien motax ñu ne yoon yëpp nañ leen wutal tour tefes yi ñu wutal leen tour mhm. ba paré jël il bi comme dafa am 50 yo xamni yoo joggé bitim réew. Mhm. ñëw jënd fi kër. waaw 50 pour yeneen yi di ay sénégalais. ñu ne ñu jéem fexé ba ben quartier bi ñu tuddé ko quartier Djibril Diop Mambéty bi ñu ko France ci alors très rapidement qu'en est-il des dauphins est-ce qu'on en on en trouve toujours. waaw en fait man ba ma fi nekkee y a 34 ans su ma digganteeg sama borom. waaw ñaari yoon laa mos a gis ay dauphins ex d'accord benn bi fi lañu yem ci booru kër gu mag nekk fële. ci plongeoir. ok beneen bi romb nañ fi. egg ba yoof laa yéen. d'accord après dem mais nag ku bëgg di leen daj am na waxtu yoo xam ni ak weer yoo xam ni soo nekkee sa gaal jógee Gorée diggante 4 heures ba 6 heures à la

dégg waaw mm-hmm. donc moi il est wax léegi nii <laughs> waaw dom, da ngay da ngay dund ak moom da ngay son complice mm-hmm. oui suy jàng l'école ngay dem di xol la mu nekkee ca l'école ba su fa défé naka su dul noonu nga sutural ko uh-huh. ndax mu mëna am suba sañ-sañu uh-huh. ni ki moma la xalon li bama délu touti lu tuuti su ma nekkee lu mag uh-huh. lu mu séq ndonte jigen la di and ak goor dana am fitu ñew te dula la ni la bay. lii dama ci bëggoon waxtaan ak loolu su amul ci diggante doom ak euh, waajuram. Mm-hmm. suñu moytuwul wayjur wa dana am lu ko ma sa nakari ci jabor googu te li yusu ndur doon way nan xala yaangi joy mak ñeleen ñee ni li moko ko tiis <laughs> loolu dafa am ba léegi lu wax xala yi rek dafa jitu ci mag ñi donc yal nañu yalla defal sutura ba ñu mëna and ak suñu doom andu nawle ah, di waxtaan ak ñom di kaf ak ñom di fo ak ñom xam luñu nekké pour jëm leen tek ci yoon très euh, monsieur Diallo ñu ngi lay euh, sante di la gërëm bu baax yow tamit euh, di ñaan yalla loxo bi wër di ñaan yalla di la ñaanal yalla guddu fan ak wër et vraiment toute la famille euh, di le remercier bu baax a baax a baax euh, mbokk yeeg xarit yi ñi ngi fa len di fatali nak né ñi ngi fi euh, ci Ngor nekkoon nak kenn ci sunu invité yi monsieur Abdoulaye Diallo di artiste plasticien waaye nak man dama koy tuddee sax un tout petit peu historien parce que on a quand même écouté des histoires yu nga xamante ne bi c'était important que mu indil ñuko ko mbokk yi ma dem régie dellu si waat mën a li nga xamante ne bi mooy sunu émission tam tam vacances nopi nak recevoir le maire Ngor. Wa mbokk yi xarit nag euh, euh, du ma def rek lu euh, vraiment di dalal jàmm bu baax a baax a baax ci sunu plateau monsieur le maire de Ngor Amadou Gueye monsieur Gueye ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm sànq nuyu nañ la waaye dañuy kontaan tey ci sa teewaay parce que bu RTS2 déplacé au ñëw ci sa gox gën a xamal àddina lan mooy Ngor ak euh, vraiment lépp lu fi xew daal di touché ci secteur yëpp defe naa ne ñuy euh, fas ta euh, tàggatoo ngum ak waa Ngor ci tam-tam vacances nga teew fi déjà daf ñuy neex bu baax a baax ñoo ngi lay gërëm aussi ci vraiment accueil bi nga xamante ne bi yow ak ña nga àndal yëpp waa population Ngor accueillir nañ RTS 2 monsieur le maire.

day tax nit ñi gën a xam ay pàcc nga xam ne xamuñu ko woon ci Ngor. dëgg la donc c' est quelque chose de très intéressant ñu mm -hmm. ciy remercier RTS 2. merci di leen wax ne seen teewaayu Ngor bi lépp luñ ci def rek xeet mhm. nañu ko. jërëjëf kontaan nañu su ma noonu continuer am na benn daam bu wax tout mhm. ñu continuer di ànd ak yéen. Mhm. ba été bi yëpp jeex. incha allah <laughs> <laughs> neex de. waaye lu neex day day day jeex. exactement <laughs> lu la nuyu tàggu na la. voilà euh, maa ngi leen di nuyu yéen

ki nga xamante ne bi mooy la Sarène Léna euh, Léna euh, fan nga nekk euh, fii ci plage bu Yànj bi lena Sarr ham like always, like derrière toi. <laughs> Y'a ham ngi lay nuyu di nuyu monsieur le maire. Ah. kon dégg naa sànq euh, picking ma doon lancé. amul ben solo. Euh, kon maa ngi nii euh, ci sa ginnaaw gis nga am na benn pirogue boo xam ne mi ngi soog di egg instant bini. oui voilà ça aussi non mhm. Sabasi da nga dégg daaj nag. Légui, ma avancé ni rek touti. waaw man j'aime bien interrompre les gens yi nga xam ne dañu au téléphone. ah bon Légui, qui daal laa si taamu tey sëñ mhm. bi doo coupé. kay ngay coupé ah Léna salaamaaleykum ah xama <laughs> ah, man mom dama sop man mayor yor micro taxawal motax daf may ñëw rek neex ma ma gis kenn rek coupé la légui euh, man dama la bëggon laaj yow lan moy sa taxaway fi ñun ñoo géré regroupement des transporteurs Île de Ngor bokk sa famille Alsan sam dina waaw ñun bép client bo xam da nga ñëw fi di traverser Île de Ngor boo da nga jassi gisé bi nga jënd ticket à 1000 francs léegi boo jëlee ticket ñu ne la dama si kees ba boo ñëwee si kees ba mën nga fay fekk ak combaan maa jël sa ticket combaan jox la gilet léegi bu la joxee gilet léegi ñu takkal la si gilet yéegale si gaal bi boo demee si gaal bi am na booy yu nekk fii ku ñuy wax falu Garas moom boo ñëwee mën na la simisi daal la teg leen seen bagage fii yéeg leen xool gaa gi nombre de personnes bi mu yëpp su matee nombre. waa sànq euh, dama dégg euh, ñuy wax fii nii ne dafa am ay dauphin mais léegi dama bëggoon laaj pour ñi nga xam ne nii yaa xam la ñu mel ñoom maanaam ñu géej daal est-ce que fii amul ay requin tamit. non fii amul dauphin dauphin bi dafa am au large. oui c'est requin laa wax de. non requin amul fii au large am di nga dem ay centaine de kilomètres. <laughs> ngay doog a gis foog ay ay requin. ay requin code bi fi amu fi daal. Mm. Ah, kon yaa xam. bu la neexee rek mun ngaa yegg <laughs> c'est safe kon ñu ñu continuer ba tey Ablaye Mal looy làqatu nii. oui euh, dañuy continuer ba tey. <laughs> Euh, waaw kay yaa xam nag xam nga yow moom macha allah fu ñu dem rek nga taamu. Euh, akara baak. waaw beñe baak fataaya baak. waaw am naa jënd mu ngi mu ngi nag yaa ngi gis yaa ngi gis naa maire. <laughs> akara dal la bëggoon ak nak, euh, nak ndax mom da ci taamu akara ak sos mer ma ngi lay nuyu. place Ngor mom mu ngi ni rek ñepp baana di na du ñuy ay sa lépp macha allah nga defaral ma ben ki rek ben takku ñom akara ak ñom sen bu ko defé ma yobul ko sama sama jambi, euh ya xam. <laughs> oui lena wa ana fallu Galas fallu Galas bi ma doon sank ni aha ah. galas lu xew fii oh waaye yéen tam bu leen tàngal ak fii ni mu neexee moos ngeen di tàngal <laughs> ah waaw léegi da ngeen may may ma toog nii si digg bi bu ko defee ñu ñu jot a waxtaan rapidement rek ah non fii moom gàtt na di xaaral ma taxaw galas euh, man léegi tey jii dama la doon laaj parce que dégg naa yow yaa fi géré kii ni wax nañu ko sànq affaire bateau yi di dem ay croisière rek ñoom merci beaucoup Fallou xam nañ ay mbirum croisière waa dëgg la waaw dañuy dem bu ay Gorée Île de

franchement parlé yatal nañ ma. Mhm. bon mun naa ne je me sens bien quoi fii. ndeysaan parce que si banlieue bi laa jógee. ñëw mhm. dëkk fii parce que fi may liggéey jege na fii. ok mais franchement parlé mun naa se am naa fi papa am naa fi mhm. yaay. tabaar fakàlla macha allah dee leen tàggoo na hii <laughs> dikk na dikk na dikk na nañ dem tabi nañ dem tabi nañ dem tabi eh. sama si teel micro bi ñu ngi dem français am am am. <laughs> waa kii fa la jógee yow. dama demoon micro rek salaamaaleykum na ngeen def ñuy sant ngor maa leen di siyaar ngi am jàmm waaw waaw mbaa seen yaram jàmm waaw waaw yow eh, arrêté sa micro c'était pas prévu c'était pas prévu damaa toog kër ga namu leen wax dëgg ngeen ci man te micro ko def ma eh, bi soxna si dal sama waay la moo tax dañuy ànd ñibbi waaw waaw grand lan ngay def yow noo tudd waaw Cheikh Cheikh. Cheikh am nga jabar. man waaw am ñaar. <laughs> alors vraiment extraordinaire. <laughs> am naa je micro très bien en tout cas euh, euh, nous, comme euh, donc juste les vacances hein. dire alors monsieur le maire quand nous avons une question yu bëri nous poser, monsieur le maire oui, un jeune bu intervenir sans, à côté de Ngor donc Ngor dalal etc. donc nous xam aussi que Ngor pas que les lébu ñoo fi c'est-à-dire que euh, amna na ay communautés yu bëri ñu fi dëkk yu nga xamante bi yaatal ngeen alors comment est-ce que ça se passe justement euh, cette vie en communauté ici à Ngor monsieur le maire waaw euh, je pense que la la dundu Ngor mhm. par rapport ak ñi fi dëkkul mhm. des fois dinañ di nga ñëw ci kër sax ñu gën la yaatal sax waa kër gi mhm. loolu ci avons Ngor ñi loolu dafa bokk ci ñoom dëgg teral gan la ñu yow mën nga euh, amoo fi ndey amoo fi baay comme xale bi ni ma ko waxee léegi. Mhm. ñëw na fi am na fi ndey am na fi baay. dëgg la waaw parce que ñun baay la ñuy wax. dëgg la voilà am na fi ndey am na fi baay. Mhm. bien que dëkku fi. ça veut dire que bu ñëwee fii rek. waaw am na ñoo xam ne dinañ ko yaatal. Mhm. dinañ ko xajal benn lal bu fa newoon ci kër ga. antal nañu ko la ko jox yow miy gan. Mhm. ñoom ñu tëdd ci suuf. ndeysaan waa Ngor daal ñoo mel noonu. très bien euh, kon nag defe naa ne muy teraanga Sénégal Sénégal rek parce que suñu waxee euh, Sénégal sunu euh, ne lébu lébu yi jiitu nañ ca. madame Cissé yaa xam waaye loolu firndeel na ko sànq. Mhm. parce que xam nga rek ñun ñiy muuru dañoo mën a sonlaate. waaw bi ma ñëwee. ñoma jël yobuma ci kër yi. dalal ma oubil ma talal ma ventilo yépp vraiment mère bi dem yoonam. très bien bayima fa té su ko du def lolu mhm. donc euh, euh, comme nous mu waxé ni euh, sama xarit Xadi mom dafa mëna wax né ñom wa Ndar rek ñoy def yoy waye gis na né tay mom waaw mais amna amna am kuy def comme yëfu ndar ndar yi. mais ko du dañuy euh, profiter justement pour mhm. euh, remercier madame Fat Sal Sek mhm. ba ñu dalé nek Ngor ba légui gis naa allah ay ay mhm. ay ay yu bax lañuy defal. mom tam mi ngi dëkk fi ci Ngor. <laughs> <laughs> en tout cas mbokk yi di fatali nak né ñi ngi ak monsieur le maire alors monsieur le maire sank ma ngi koy wax l'artiste monsieur Abdoulaye Diallo. alors c'est vrai que du côté de Lille ça a beaucoup changer changé parce que avant c'était plutôt ay etc mais les gens nañ ont fait des étages, dem euh, ay étage et cetera un peu voilà peut-être euh, un mot par rapport à l'eau. je pense que je suis pas la seule à le remarquer.

ah amul benn construction ba nga xam ne jóge na ci île bi ñun bi ñu fi léegi ah, au niveau hmm. de la mairie. d'accord amul benn construction bu fi ñekk rek ba xam ne ñëw nañu wut autorisation de de construire. ba ñu accordé leen ko. très bien voilà donc c'est antérieur à notre qui euh, euh, notre arrivée à la mairie. tout à fait donc loolu moo tax bon c'est vrai que quelque part c'est un peu déplorable l'aspect euh, l'aspect nu mu tuddati. Euh, Kabano oui Mon gënoon jekk ci c'était très joli kon waaw yaa xam euh, sànq euh, euh, si micro trottoir bi si électron libre bi mhm. leen maa ngi dégg foofu ñuy wax ne fi dafa am croisière ak yu demee noonu alors man de façon générale lu may déplorer mooy sénégalais yi xamuñu li ñu am en fait parce que ñu si bëri bu ñuy voyage dañuy bëgg a voyager dem bitim réew mhm. wala à la limite ñu dem Mbour wala yu demee noonu or ici même à Dakar dans une euh, dans une zone comme celle-ci fu ñu il y a beaucoup de commodités yoo xam du tubaab yi rek ñoo a ñëw ut donc ma bëggoon xam monsieur le maire yéen euh, euh, naka ngeen di def pour attirer les sénégalais pour mun ñëw profiter ici, croisière yooyu mën ñëw nek ci île bi ak yenen ak yenen yoo xam du soxla ñuy jëggaani fenen wala ñuy jël billet d'avion di dem fenen waaw côté bobu dama dama ci dama len ci remercier rek parce que. Nous def nañu ci que Sénégal dans les environnements. Mhm. dans les environs qui aux alentours de Dakar. Mhm. je pense que xam Ngor ce ngeen def nii par rapport à l'émission bi ngeen def nii. Mhm. dañuy visibilité. Mhm. ah donc encore une fois mané, ne nous allons ngi remercier. Mhm. mais il y a des manifestations qui se font. Nous sortons déjà euh, samedi sans nommer équipe sans faire de la publicité. oui monsieur le maire am na concert bu oui ba c'est uniquement dédié à ça Nous nit par rapport à la plage Nous avons fait un a taxawee

kaf ree ñibbi alors ah. Lolo c'est extrêmement important euh, madame Cissé euh, merci encore euh, mbokk nous euh, nu xuus ci émission euh, Tam Tam Vacances ci Ngor di fàttali ne que tey le RTS2 di déplacé pour dem ci beneen gox ñu def rek lu di recevoir ki nga xamante bi mooy la grande Saint-Louisienne n'est-ce pas Kodou je lui accorde il y a pas de souci ci bon plan waaye laata loolu ma xool sama xarit Sophie Sophie fan nga toll euh, ci euh, suñu plat bi euh, monsieur le maire yaakaar naa ne mosuñu mënuñu ñëw nag fii ci Ngor te nag si gastro bi nu ñu defar jën nag parce que nag bu ñu waxee léebu dañu naan jën ak nag lépp lu nga xamante ne dafa jëm ci géej. waaw mbaa mbaa jën yi daañ ko roof. am na roof Sophie le maire. nee na est-ce que di nga roof jën yi jën yi waaw. waaw dañ ko roof <laughs> ah. na saf sàpp de waaw na saf sàpp. jën yi démb lañ ko roof bàyyi ko ci mu maseere. waaw waaw ah, boobu moom moom moom macha allah. <laughs> dèjà yaa xam comme ni nga ko gisee nii. Uh-huh. suñu jën yi ba tey euh, ñu ngi ci gris bi. dama defar nag benn marinade boo xam de temps en temps damay ñëw daal di koy arrosé ci kaw jën bi. Mm. su ko defee ma mën koo retourner su ko defee dafay gën a am goût. waaw gis nga nii rek. gis naa ko.

jàmm rek la ñuy am euh, ci biir loolu nag may euh, dalal jàmm bu baax a baax na ma ko waxee woon la grande salusienne Khady Didi Khady maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax euh, en tout cas daal fii ñu toog ni daal Khady bakkane na xaw ma nag tey lan nga nu indil waaye daal dalal ak jàmm bu baax a baax a baax Khady Didi yaa xam maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le maire

Motivation nous ngi ci sali sport di tagat mais bi ni trop ñu out walk out ñuy liggé ci biti fu plage ak pour am pour oxygène aussi comme il faut C'est le indi concept circuit training bi ñuy donc circuit training par station la station commence. après une minute da def temps de récupération station

parfois aussi ñu de 18h à 19h. L'inscription est sur le net da ngay bind MAMS motivation Vous ko bindee Ce ko euh, pas lucratif du loo xam ne dañuy fayeku nit ñi par force ak comme on a matériel te bëgg nous demandons juste une participation symbolique nous invitons tout le monde voilà c'est ça. Now the whole place I talk about the old from New York that give her the sparks. And I'm a straight jeans pants, I'm a wallaby clock. The boy say, oh.

qui est là. Il était notre invité hier. Voilà. Hein? Oh, il était notre invité hier. Il est Il était notre ah, invité. Ah, voilà. Donc, euh, <laughs> Mongok, voilà. Comme euh, je suis un peu. Euh, dama xaw a tardé ci <laughs> émission bi <laughs> donc on euh, comprend c'est le boulot voilà et euh, il s'occupe beaucoup de de Aquagym personne Aquagym très bien bu dul même de manière individuelle Hein. ku nekk woon nga mën a tàggat sa euh, absolument la place s'y prête la plage s'y prête uh-huh. pardon

kooku sax suñu collègue la si ñun la bokk mom ah. Moms Motivation ah. néna day def euh, sport ci salle yi mais période du tangay bi il est préférable nga génn ci biti d'accord moo tax sport bo mi ngi ko tuddee workout d'accord wa donc motax légui néna tous les week-ends ñom dañuy génn dem ci boru plage bi mhm. fofu lañuy défé sport bi te sport yu bari lañuy ñuy def mhm. te nee sport bu nek 1 minute lay durer légui bu durer 1 minute da ngay noppalu ko waat quinze secondes pour reprendre une prestation. d'accord te nee na lépp lu mu fay def rek pour defar yaramu nit ñi la. pour nga am wérgu yaram. Mhm. parce que foog naa bo amul wérgu yaram lu bëree yaa xam doo ko mën. dëgg la moo tax te lépp daf yombalal nit ñi il suffit juste que nga dugg ci YouTube bi nga inscrire foofu benn liñ lay laaj jaxul dara. parce que loo xam ne pour sa yaram la moom luñ la ci fayeeku rek. foog mhm. naa dina ko jar. Mhm. te foofu ci corniche bi ma demoon yaa xam. sport rek moo fa am. am na fa ay jeux pour xale. tout donc tey yow boo demee ak sa njaboot jarul ngay am jaxlé da ngay jël xalé yi yóbbu ñu fowi mhm. yow nga dem defi sa sport tranquillement xalé yi aussi mën nañ defaale sport ndax sport baxna ci mag baxna ci xalé absolument moo bon plan daal moom bàyyiwul dara mhm. ci lépp lo xamné rek pour jëmale nit kanam mom mi ngi ci très bien mhm. alors bu ci kanamé xadi inshallah di nga ñëw ak ñun euh, ci euh, ku bugg a def bon plan euh, naka lay def pour mëna jokk ak yow waye dal dafa melna suñu xarit Sophie ma ngay tourner li nga xamante bi Euh, moom mooy euh, euh, sunu jën yi fii ci plage Ngor

Khady mi ngi sport amna sport yu bari yi nga xamantene bi jot nañ ko fay wax ñu gis que euh, vraiment il y' a beaucoup de médailles C'est vrai que des fois duñ ko fësal mais au niveau de Ngor vraiment euh, les jeunes euh, ñi ngi attelé vraiment di def pour bu rafet ci sport est ce que à votre niveau il y a des accompagnements par rapport justement à ces jeunes ci côté sport. absolument déjà tout à l'heure rek bima togué fait le premier adjoint on est en train de on était en train de discuter parce que dafa am suñu benn xalé bu jigen waaw ba ah, nga xam ne mooy Sénégal. Mhm. ci canoë kayak. d'accord voilà ñuy waxtaan ci fi nan lañ koy jàppale. pour que mu mën dem ci compétition bi. ak mhm. jàmm ak salam en général au niveau de la commune. oui les euh, jeune ba nga xam un da nga affaire pour euh, sport rek yooyu nga un certain niveau rek. Mhm. soo en génn rek. nous Nous très bien Nous accompagnons tout le monde. alors euh, justement ça me permet de saluer M. monsieur Yaba. Yaba, en tout mm. cas équipe bi mm. vraiment jàppale nañu bu a premier adjoint au maire. Mm. monsieur Ba RTS2 yëpp content nañu ci yow remercier aussi euh, voilà chef sécurité université bi euh, moom itamit mm. Bibi Bibi moom tamit euh, euh, RTS de kontaan monsieur le maire ci biir loolu faaw ñu interpeller aussi ci wàllu santé ci wàllu pour nga ñëw fi parce que nekk na ay pàcc yu nga xamante ne bii am solo loolu après nag ñu xuus ci culture beeg yooyu ci santé qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous comptez encore faire parce que vu nit yi si je pense que à chaque fois population Ngor bi dafay augmenter bu baax a monsieur le maire waaw euh, je pense que nous ñu ñëwee ñun nous fait que dañu fekk centre de santé bi installé d'accord et depuis lors je pense que nous avons ci ay jéego ya nga mhm. euh, képp centre de santé Ngor rek mën mhm. même le centre de santé de Ngor fait partie des trois centres les plus propres de Dakar. les plus propres. c'est très important. voilà nous avons fait des choses uniquement qui sont indépendants de ce centre pour que nous nettoyions le centre de Goudek Bechek Très bien. Nous accompagner le centre de médicaments. Nous mhm. avons doté 10 millions de médicaments. Ah, ça c'est bien. Voilà. Nous avons mhm. doté 10 millions de médicaments mhm. Nous avons ubbi ay secteur euh, gynécologie ak par branche d'accord euh, chaque année on évolue sur une branche deux branches deux secteurs très bien nga dañ koy centre bi gën ça c'est le côté santé maintenant côté femme. oui man mën naa wax ne jigéenu ngor sumay xarit lañu. macha allah mm-hmm. fu ma yegg rek jigéenu ah. ngor ñoom fa yegg. macha allah <laughs> voilà lu ma am grâce a jigéenu ngor. macha allah moo tax du ma leen fàtte benn yoon. dëgg la ah lépp lu ma jàpp rek. jigéenu ah. ngor lépp lu ñu soxla suba ba ngoon. Ah. guddeeg bëccëg rek maa ngi ci kawam. très bien bien kon nag euh, loolu neex na dégg. waaw ñu ngi leen di euh, euh, gërëm di leen sant bu baax a baax euh, Khady Didi yow tamit ñu bàyyi la peut-être nga am aussi un message parce que ça maa ngi lay laaj aussi c'est important parce que RTS2 dafay fësal saa ça ne vraiment lépp lu nga xam ne nit ki daf koy jaay wala mu bëgg mu fës RTS2 dana ñëw vraiment defaral la ko ba mu baax te loolu ci Khady Didi moo ciy yëngatu bu baax a baax Didi d'accord ya xam li nga wax noonu la man moom maa ngi yëngatu rek lo xamné bon plan la mhm. bon plan na comme niñ ko gisee nee la chaque jour ak bu bees bi ma lay indil dëgg la ku bëgg rek sa bon plan jall bu ba waaw da ngay woté si 33 849 13 37 waaw wala nga woté si 77 639 60 95 nga joko ak Khadidi Didi dina la défal ba baax très bien uh-huh. en tout cas Khady euh, RTS2 mi ngi lay euh, gërëm di la sante euh, bu baax baax mbokk yi nak ma xol Euh, Sophie Sophie daal yaa ngi ci yaa ngi ci jën bi rek yaa ngi ci jën bi. maa ngi ci jën bi yaa gis nga ni. waaw dama jël benn euh, cure-dent rek. La de ci marinade. di ko piqué tout doucement rek. d'accord pour marinade bi gën du du <laughs> Sophie tu es extraordinaire euh, Nous sommes gërëm euh, di sant bu baax a baax euh, waaye artistes yi ci plateau bi ñu une ñu prestation tout simplement pour accueillir le grand Michael Souma ci la musique ci Tam Tam Vacances je rappelle Canal 5 Boutente. merci beaucoup. day. samba banco sete Alors, non, non mais c'est vrai que, euh, franchement, j'ai pas envie de quitter, hein, parce que euh, il y a du poisson devant moi, de la belle musique euh, à côté, et j'ai la mer juste à côté. Voilà, c'est un petit paradis. Alors, c'est une façon pour nous d'accueillir Dalal Diam qui nga monsieur Michael Souma parce que nak artiste ñuy indil ci vacances machallah daf ñuy neex le grand Michael Souma euh, euh, mhm. monsieur le maire. Uh-huh. Euh, merci de nous accueillir chez nous. <laughs> j'ai dit chez nous parce que bon, moi j'ai des origines goréennes. Hein. Uh-huh. Donc Goré, Ngor, Wakam, je pense que tout ça, nous avons à la limite une culture, une tradition. Exactement. voilà, donc, donc merci de nous accueillir en fait ici à Ngor. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir hein, d'accueillir également Cheikh Oumar. Euh, dans cette émission Tam Vacances. Mhm. Euh, parce que Cheikh Oumar euh, comme il ma ko ak la nouvelle génération de la musique au Sénégal. Tout à fait. Et je pense que on est fiers d'eux parce qu'ils constituent la relève hein, véritablement. Oui. donc euh, Cheikh Oumar euh, di rakk ci ki nga xam moy Doudou Max mhm. Doudou Max nak nekkon musicien bu mag dëkk fi ci Ngor mhm. euh, c'est vrai que génne na il y a quelques temps il y a quelques années d'accord et moom mii ci bopom génne benn album diko rendre hommage tout déco Doudou Max d'accord euh, Ngor nak nekk na gox bo xam dafa bari musicien c'est un mhm. grenier de musiciens oui parce que so setlo musiciens yi fi jugee yëpp Euh, ils le font c'est de c'est de c'est de père en fils. Okay. ou de parent à parent xamna euh, monsieur le maire na ma ci mëna euh, na ci mën doli dolli lu euh, sànq dara euh, su dara. de même que Cheikh Oumar. oui donc c'est un fu nekk gox bo xamné beaucoup de musiciens sont issus en fait de Ngor. D'accord. euh amna ñu xamné ñi ngi bitim rew amna mhm. ñu xamné ñi ngi fi ba légui amna ñu xamné genn nañu donc je pense que euh, quand on dit Ngor on on parle de de Goumbé. oui on parle nest ce pas de toute cette tradition nest ce pas de lebou hein. muy muy Goumbé bi di bi. Ah. Euh, di euh, toute cette culture musicale Hein? ma daw de parce que dafa mel dama seen ben junkoob fat euh, ah bon Waouh, waouh, junkoob mais c'est pas grave ouais, mais c'est émission bi la bokk je reste encore mi ngi nii sax ah déet bu mu ñëw fii voilà <laughs> ah bah non. waouh, Michael voilà alors donc euh, Cheikh Oumar ñu bàyyi comme mu avec ak téléspectateurs yi très bien salam salaamaaleykum Bolomi. salam salaamaaleykum RTS 2 euh, salam alaykoum monsieur le maire donc euh, Michael maa ngi nuyu ñëpp di contane ci invitation bi xamantene permettre na cheikhou Oumar et le saw Diant tey ma ànd see ak euh, sama doomu ma samba mhm. affaire bu simple ñoo defar affaire bu simple mhm. donc maa ngi nuyu ñëpp di len dalal ni ngi lay fay bu baax voilà donc ah. Cheikh nga wax ñu rek yow li ngay def ci walu musique lan la mhm. voilà au fait maa ngi def folk musique euh, so xoolee sama ñom pap ñoko ko commencé woon comme Michael ni mu ko waxee mhm. de père en fils donc après si le Doudou ñëwee di ko essayer exporter mhm. donc yalla def en 2007 mu génn aduna donc comme nous ñu doon des fois mu ñuy ataaya suñu démé géej ma di leen di atayal mhm. donc si la doon laal guitare avant avant légui des fois suñ togé, mu ne ma jëlal guitare ma jël sama guitare ñu commencé di jouer euh, sous loolu wesso mu ne demal ci delul ci kaye yi donc yalla def bi may am bac noonu mhm. mu génn àdduna donc ma mujjé di bolé étudier aussi ak euh, guitare bi pour djema a euh, yaatal li xamantene liguey bu mu doon def la mhm. donc fofu la Cheikhou démarré très bien voilà oui alors donc Cheikh Oumar c'est vrai que yaa ngi def acoustique folk mais est-ce que yaa ngi puiser ci seen tradition fi angor parce que wax naa ko sànq mhm. ku ne Ngor xam nañu né tu vois ces différentes rythmiques yi am fi muy gumbe bi di taaxuraan bi. di mhm. ak yeneen. Mhm. waaw soo xoolee euh, tay mhm. donc euh, da ngeen ñëw pour vendre destination Ngor. ñu contane ci lool. motax tay dama jël répertoire bo xamantene lepp lo xamantene euh musique gu Ngor la musique bo xamantene fi la juddo so xolé bu njëkk bi ndëpp la. ndëpp la njëkk jouer légui biñu bi waat muy ngumbé donc Amarna, na yo yoo le pour parce que lébu dafa am culture bu donc nous, euh, nous ñun foofu pour. Euh, exporter cette culture. Exactement alors justement tu euh, exportation culture c'est vrai que Yankoy ngi dit di wax parce qu'on en a beaucoup parlé ici encore faut beaucoup aussi ci tradition et je pense qu'à travers ces chansons justement Yankoy ngi et c'est aussi des messages que vous lancez aux populations et surtout à la jeunesse. Si, si, euh, parce que ce rôle est donc euh, avant tout il faut que les malade. Les femmes euh, wax malades. faral. donc xam y' a des des des esprits yoo des mauvais esprits. donc ñun dafa am esprits qui sont donc you demee comprends pas. dañ ah d'accord ok d'accord donc so dañ lay protéger. ok des fois nak nga deuguer bop dem xamné mom na muy des fois indi pour la donc dañ lay la. la xamba yi. Mhm. donc suñu la l'Afrique a ses réalités. <laughs> Uh-huh. Michael mais ko rek ci euh, morceau très bien. Hein? Uh-huh c'est reparti. Donc, Daniel dem Bin. D'accord. va a vraiment euh, nag Michael kontaan nañu euh, ci euh, euh doomu ngor bi nga xamanteni bi tay indi nga ñu mais vraiment très très belle musique hein te nak ndaw rap bi monsieur le maire dafa que vraiment culture bu nga même que tout simplement sénégalais daf lay daf lay dugg bu et je pense qu'on a été accueilli dès le départ par justement nos bobo, sunu ay tata la won légui sunu ay euh, surtout la grande Awa j'allais dire. Euh, uh-huh. c'est vrai que euh, c'est la <coughs> ak ndëpp. Mhm. mooy cosaanu lébu. dëgg la. Euh, je pense que ñun ñëpp ñoo ko daan bokk. góor ak jigéen mag ak mhm. du ko fecc. dëgg la man mii su ngeen tuuti ma laal. ah déedéet waaw waaw. Ah,

ok di leen accompagner. d'accord bien sûr que ñun itam ñoo les seen gannaaw. dëgg la ah parce que chaque année. mooy comme nous avons xarafalee xale yi. waaw di mhm. bon ça coûte euh, de l'argent ça coûte pas mal d'argent. tout à fait mais chaque année. si on ngi koy mhm. et chaque année ça prend de l'ampleur et chaque ah. année, nous avons accompagné. Ah ben, c'est très bien. Alors, Michael, on va terminer l'émission tout à l'heure avec, euh, avec euh, l'artiste. Euh, wow. Mais avant, oui, avant, ça, j'aimerais demander enfin, une question quoi, à, Doudoumar. parce que monsieur le maire l'a dit, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Amna ñinga ñi moy xam ne ndëpp mhm. mooy ndaw rabine mhm. mooy gumbe mhm. nga ñetti genre musical yëpp mais je veux dire que lutax aujourd'hui parce que Sénégal un euh, patrimoine musical très riche énormément riche mais plus tard justement les musiciens était tey exploiter tout ce patrimoine là ah. duma duma duma wax pour les autres oui mais ñun mhm. en tant que ngorwaa suñu culture la ñuy jiital mhm. soo xoolee album bu ñu def moo siy ëpp li mhm. xamante ne suñu culture je ne sais pas avec les autres musiciens oui waaw mais je veux dis que ci patrimoine musical Sénégal bi le bok aujourd'hui c'est vrai que a des a qui koy mais la plupart des musiciens en général. Mhm. du ñu xalaat gëstu ci côté boobu. voilà parce que juste euh, constat boobu comme te def nga parce que mhm. tey jii ñu ngi gis ñoo xamante ne dañuy copier sur euh, la musique nigériane. Mhm. yooyu noonu quoi. voilà donc loolu bon am na ku la ko dàq soo xoolee soo demee.

bi moom ak ay équipe am nañ ko pour euh, Ngor waye nak euh, damay euh, dem de l'autre côté ma xol sama xarit Khady Didi la Saint-Louisienne fan la toll ci li nga xamante bi moy météo Khady fan nga nek Khady. maa ngi nii jàkkaarloog yow tay ah oui tu vois ça c'est bien hein? oui <laughs> Y'a xam ñu dem ci prévision yi. waaw. Dakar dinañ fa am 26 degrés si Vous mhm. euh, bu demee ba 29 degrés. vous mhm. si ñu 27 degrés. mais nag Dakar nañ jàpp ni dina xiin dina d'accord. ñu dem Diourbel. Mhm. Djourbel. tamit dinañ fa am 25 degrés. bu demee ba midi mu nekk 33. ngoon si nekk 28 degrés. tamit asamaan si dina xiin. d'accord ñu dem Linger. Linger, le matin bi ñu am fa 26 degrés. bu demee ba midi mu nekk 36 dina tàng lool mais ngoon si dina wàcc ba 30 degrés. ak tamit asamaan bu xiin. très bien. ñu dem Saint-Louis. Mhm. Saint-Louis le matin ba ñu am fa 27 degrés. diggu bëccëg bi dina nekk 30 ngon si dina fex ndax dinañ dem ba 27 degrés fofu tamit Asaman, bi dina xiin. Mhm. Catherine, matin bi ñu 25 degrés. bu démé ba midi mu 32 si mu wacc ba 27 matin bi ñu am 24 degrés. bu démé ba midi mu 29 26 dina taw bu baax. suñu mbokk sax dinañ ko xam yu ñuy parapluie. ils ont l'habitude hein. coucou à Sophie de Shore. <laughs> Matam. matin bi ñu am fa 27 degré midi bi dina tàng ndax day nekk 36 degré bu demee ba ngoon mu nekk 32 degré Matam tamit dina xiin Kédougou ñu am fa matin bi 24 degré diggu bëccëg bi nekk 29 ngoon si nekk 25 ñu dem Thiès Thiès ñu am fa 25 degré ci suba bu demee ba diggu bëccëg mu nekk 32 degré ngoon si nekk 27 ñu dem colda Kolda matin bi nekk 23 midi bi nekk 29 soir bi nekk 25 euh, Kolda nag yaa xam. dina taw bu baax te dina ànd ak ngelaw tamit. ok ñu dem Sédhiou Sédhiou ñu am fa 24 degré matin bi midi bi nekk 29 soir bi nekk 26. ñu dem Kaolack Kaolack matin bi nekk 25 diggu bëccëg bi tàng lool ndax 32 la bu demee ba ngoon mu nekk 27.

tu vois yaa ngi dougal sa tanki ci si ndox bi. non ya am tay météo parce que ndox bi day ñew di ma fekk ci non dama né c'est ah. agréable et puis Khady ndeysaan on est obligé de de partir hein. mais mais c'est dommage c'est vraiment hein. dommage je suis déjà ah, triste. je te jure hein. oh non. en tout cas merci beaucoup Khady. merci à toi aussi euh, On dinañ la retrouver ci benen gox euh, ci Sénégal Inshallah, pour wéyal sunu émission tam tam monsieur le maire euh, émission mi ngi waja a jeex nag waaye du def rek lu dul la nga ñew ak ñun ci say projet parce que xamna né projet yi ci bép fànn la culturel infrastructure etc. Euh, nga ñëw ci dal bu ko défé ñu jéxal en beauté euh, parce que xam naa ne maire yépp la ñu bëgg moy euh, gëna jëmele kanam sen gox. <coughs> <coughs> waaw au niveau des des projets de la commune. Mhm. je pense que ku xam Ngor xam Ngor ni mu meloon ak légui biñu fi nekkee ak légui li fi def. Mhm. suñu waxalé dëgg rek té Yalla tax. Mhm. am na avancement amna changement. d'accord te changement yooyu je pense que dañuy ñaan ñu asseoir ko ba ku ñëw rek suñu gannaaw mu une continuité. très bien. Euh, bu ñuy wax projet yi nga xam maire bi sumb na wala moo ngi koy au niveau de Ngor. Mm-hmm. mën nañu wax lu euh, lycée bi. lycée bi ñu autorité promette te mu wóor mën na ko def. d'accord un lycée. un lycée. d'accord. Euh, ce qui est une demande très forte. Mm-hmm parce que nous, euh, mhm. c'est agréable. Mhm. mais l'éducation est importante mhm. l'éducation a son importance. on est en train de réfectionner les écoles actuellement. d'accord. Euh, nous avons créé donc école arabe où très bien. donc nous sommes est en train de faire le canal. qui était une doléance des populations. d'accord on va lancer l'appel d'offres mhm. ñu ko parce que mhm. c'est des eaux pluviales mais y andi ay moustiques yu sont ak d'accord on va lancer l'appel d'offres ça fait mhm. plus de centaines de millions dañ koy defar euh, au-delà de ça il euh, y a la santé ok donc euh, comme nous, nous, ko chaque année que Dieu fait nous allons subventionner les hôpitaux te dañuy a subvention yi à chaque année dañ koy def ça c'est le côté santé côté culturel Serrou, bien qu'il gratte sa petite guitare, c'est un conseiller municipal. Ah, d'accord. Et c'est lui qui s'occupe de la culture à la mairie. Très bien. Donc, euh, nous, nous sommes en train de préparer la semaine culturelle d'Ungor. OK. Euh, et puis, dans aussi, euh, comme chaque année, nous avons fait une centaine de, de qui, qui les prendre en charge, Bakar après, ben Kassak Kassak ça,

dëkkub teraanga la. Mhm. dëkkub jàmm la. Mhm. dëkkub euh, euh, teral nit la. très bien Wa ngeen baal balma. Ah, en tout cas monsieur le maire euh, kontaan nañ ci yow dina remercier incha bu ca kanamee ñi nga xamantene ne bi ñoy sa équipe kontaan nañu vraiment on a été vraiment très très très bien accueilli Madame dem nag xool Sophie mu vraiment présenté ñu plaawam ñu jeexal émission bi ak ki nga xamantene bi moom mooy Michael Souma avec l'artiste gis ngeen jën bi nga xamné Sophie défar nako euh, ba euh, Sophie nak, euh, jën bi defe naa ki nga xamantene bi nga ko wara yekkal moy monsieur le maire bu baakha baax Sophie jox naa la kàddu gi nga tàggoo ci ay les téléspectateurs

Petit persil. Mm. daal di poisson d'accord orné ko waaw orné piment jaune aussi. waaw koy à côté. c'est au choix y légumes sauté mhm. amna poisson braisé qui nak bu la ci été bi blanc wala nga def wala nga def pourquoi pas exactement valoriser li nga sa très bien alors euh, ma plat bi ci plateau bi ñu monsieur le maire euh, mu parce que heure bi euh, yi def rek Michael remercier encore une fois le maire de Ngor dit monsieur Amadou Gueye di remercier suñu invité euh, l'artiste euh, monsieur Abdoulaye Diallo waaye di remercier monsieur Alpha Yayaba euh, premier adjoint au maire ak Bibi le chef sécurité ak kep ku nga invité ou émission Tam Tam Vacances képp ku nga vraiment diapongati toute la population de Ngor euh, vraiment, nous avons été très bien accueillis. Ah, Encore une fois, nous remercier Madame Fatou Sal Sek, il a 4 ans et il s'appelle Wahab. Nous sommes euh, ci ngor lañu nekk euh, gis ngeen monsieur le maire té li nga xamantene mom may plawam nonu euh, mbokk yi may remercier toutes les équipes techniques ça su ne dama koy wax sama liggéey moo ci gën a néew ñi ngi jàpp ci liggéey bi bu baax baax c'est le groupe RTS di remercier tous les chauffeurs tey nag ma xaw si cof tuuti di remercier monsieur Top le grand chauffeur top De remercier euh, suñu euh, Serigne Saliou euh, Manique nuyubu koy nuyu bu remercier Bamba parce que nak suñu ñuy ñëw ci gox yi euh, il faut que ñu am ñi nga xamantene bi euh, ñom euh, ñoy indi électricité bi Bamba vraiment ñi ngi lay remercier way nak di beral aussi ngërëm ñi nga xamantene bi dañu nekk ci côté montage Aline Gueye vraiment merci ak stagiaire bi way di remercier aussi chef de service montage bu RTS 2 Aline bay, Alioune bay, RTS 2 Contane ci yow ñoo ngi lay ñaanal wër ak jàmm ak salam xamna né Augustin ak madame Aminata Aminata bi nga xamante bi moom itam mi ngi côté décor ñoo remercier di remercier Delphine euh, bi que euh, ci maquillage ak képp bépp maquilleuse bi nga xam jaar jaaroon nga euh, madame Sec et les autres tout le monde je n'oublie personne Moi qui maa ngi remercier ki nga xamante bien bi moom mooy Latifa mu jaar ci 77 639 69 41 waaye nak. balaa may jox Michael Souma damay remercier bu les autorités de la RTS monsieur Racine ak ses directeurs de remercier son directeur euh, Omar Ba waaye nak di beral ngeureum nama koy defee sa suné ki nga xamné mom moy madame Fatou Dieye euh, waxoon waxon nako fuma fuma fu pantalon mu wag fa fu ñu duggee ci ndox mi mo ànd ak ñun donc c'est tout simplement une belle équipe l'équipe de la rts de Fatou merci ñi ngi vraiment képp ku ci Masata, Massata Lamine Fall euh, Evelyne et Aïssatou enfin euh, chaque jour d'Aldina dina am ñu ma def rek Souma euh, bu ko defé en beauté l'étape de Ngor comme je le dis c'est dommage on est obligé de partir mais en tout cas ça a été vraiment voilà un passage qui nous aura marqué euh, justement dans, cette émission Tam Tam Vacances. En tout cas, merci de suivre la RTS2, Tikanal euh, 5 BouTNT, NT, euh, Michael Souma Mangle ngi Kadougi, Bokodefe de avec mm. justement l'artiste qu'on a invité aujourd'hui. Merci à tous et surtout bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne. Voilà, merci Aram. C'est vrai que nous allons à chaque émission Tam Tam Vacances, de découverte en découverte côté musique. Et donc aujourd'hui, on a eu le plaisir de, recevoir euh, Cheikh alors, cher Omar qui fait partie de cette, n'est-ce pas, de ces nouveaux talents de la musique euh, ici donc euh, au Sénégal. Euh, cher Omar, c'est vrai que as nga un album en hommage à ton frère mais qu'est-ce qui s'est passé depuis lors et quels sont tes projets donc après album B, on a eu à faire beaucoup de concerts donc comme dañuy dañuy à l'étape suivante Ce rôle, Doudou album qui a été ak Jean Baptiste je pense que xamante ngeen bu baax mhm. donc euh, yàlla def euh, ñu dugaloon lu jot toll si cinq morceaux yàlla def mu génn àdduna donc instant yi nii si projet boobu laa nekk ak Jean Baptiste ak des musiciens comme Rekel ñu koy def sur Paris donc si euh, laa nekk nii di job mhm. xam naa léegi mu sotti incha allah ñu pare voilà alors c'est vrai que tout à l'heure joué nga benn Goumbé joué nga Ndaw Rabine joué nga Ndëpp mhm. alors lan la ñuy terminer donc dañuy terminer ak yow daal acoustique euh, mu nekk ci album bi ma defoon que en duo à Pape Cheikh ma di leen di nuyu de passage aussi ñoom parce que sama carrière jàpp nañ ci bu baax seen première partie yi. Mhm. doon naa ko jouer jouer ak ñoom def duo bi ak ñoom donc euh, moom la ñuy terminer. Cheikh Oumar à vous. ok merci.